bismillah alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala ibadihi allazina astafa mbokki assamadiya ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fas yéene dikkaat ak yéen ci bind biñ leen baaxoo andil ci téere bi tudd irwaa un nadim min azbi xubbil xadim te cheikh mahamadul amin Jóob Dagana bind ko ci jaar-jaari cheikhuna ahmadul xadim mu mel na kon tey moo war a nekk bindu fukk fukk fukk ak ñetteel incha allah ci page cent vingt deux mu mel na ñu ngi tolloon ci tukkib géej gi fi muy leerale sëñ bi doon gi mu doon yonent bi salaa ci mbiram ak ci melokaanam waaye itam mu leeral la ci lu doy lu lu maanaam lu doy sëkk mu war a ñëw nag ci sëriñ bi jëfe gi mu jëfe sunna su yonent bi salallaahu alayhi wa ci tukki bi damay jàpp gi jàpp ci sabab yi. ngir matale ay teggin diggam ak boroomam mu ne wa minhu bokk na ci sabab ya annahu naka moom axraja génne na lanaa ñeel na ak xasida mu assasatan guddi gun fonde min xurufi xasbuna allahu wa niamal wakiilu ci xarafi xasbuna allahu wa niamal wakiilu wa qaala wax bi haadihi alqasidati ci gila xasida ne taxassantu sangewu ashiyata yowmi aljumuati ci ngoonuk bisub ajjuma xiina azamtu ci waxtu wa ma alal masiri ci dox yow sabt ci bisub gaaw maahum ànd ak ñoom baada an xassana ci ginnaaw ba ma sañewulee rasulullah yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa azinata mu digal lii ma fil masiri ci dox wa qaala mu ne ma imshi doxal laa tax te bul ragal ab dara lor bokk na ci e, sëriñ bi jàpp gi jàpp ci sabab yi jëfe gi mu jëfe sunna si bi sallallahu jàpp ci sabab yi mooy e, génne na ak xasida njëkk muy dugg ci njëkk muy tàmbali tukki ba tukki bi xasida goo xam ne da koo tënkee xaraf yi xasbunallahu wa ni'mal wakiilu di ci sengewu ak di ci aaru ci ngoonu ajuma ji nga xam ne ca suba sa di samedi ca la war a xëy nag daal di jublu ci tukki bi tàmbali tukki bi ànd ak ànd badrin mu wax ne sengewu naa ci xasida gii ci ngoonuk ajjuma bi nga xamee ne dogu naa ci xëy ci gaaw bi dox jëm sama tukki bi ginnaaw boo xamee ne yonent bi salaa salaam aar na ma wëri la ma sàkketu kaaraange ba noppi ne ma doxal te bul ragal jenn lor ndax lor du mën a agsi ci yow fa xaaka jàppal nag fa xaakaxaa jàpp ko moom xasida gi bi rummatihaa ci mboole seen tabarrukan ci barkeerlu ci barkeerlu wal yaxtanimha tana ko màng kat muslimun ab julit yuhibbu boobu dana sopp at taxassuna sangeew maa ci lépp loo xam ne yeesu uhu dana ko naqari wali taalama ak ngir nga xam bi matlaxiha ci fenkuteefam la maanaam ci njëlbeenam ga ne annahu naka moom sëriñ bi mukaashafun ku ñu wuññil la ko bi ismatihi ci ak muccam minhum ci ñoom wala tan sa tabul fàtte qawla baadihim waxi lenn ci ñoom inna saaxatal jumaati naka waxtu ajjuma wa na naka waxtu ajjuma wa hiya moom baadal asri nekk na ci ginnaaw gee tàkkusaan ilaa xurubi si ba ci soowu jant bi nee na maa ngi lay indil xasida gi lépp nag ngir nga barkeeloo ko te itam bépp jullit boo xam ne bëgg naa bëgg na bëgg na kaaraange bëgg mucc ci lépp lu ko naqari ak lépp lu koy lor na taqoo xasida gi te itam nee na njëlbeenu xasida gi tamit bay du ci njëkk rek di nga ci xamee ne sëriñ bi sunu borom wanoon na ko bu wér ne ko di mucc ci say noonu te bul fàtte na kat saa soosu nga xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ne ajjuma am na ko ta ku ci ñaan loolu lu ci ñaan suñu borom nangul ko ko dégg nga saa soosu am nañu wax ne ginnaaw julli tàkkusaan la ba keroog jant bi di so ta ci diggante boobu ci la sëriñ bi taalif xasida gi mu ne wanasul xasidati yaxub xasida ga nag mooy xamitu man yaasimuni min addarar min kulli shaytaanin wa jinnin wa bashar xamitu sant na man yàlla mi nga xam ne yaasimuni dana ma musal min addarari ci lor min kulli shaytaanin joj bàyyi koo ci seytaane wa jinnin ak jinne wa basharin ak doomu aadama maa ngi sant sama borom mi nga xam ne dana ma musal ci jëpp lor ju bàyyikoo ci seytaane ak jëpp lor ju bàyyi ci jinne ak jëpp lor ju bàyyi koo ci nit bayit woowu rek wane na ne kon moom xam na ne sunu borom musal na ko ci ay noonu ba noppi subhaanahu tudd naa ak sellam rabban ngir muy ab buur xafiisan bu di aji wattoo axtami kook danaa aaroo bi xifsihi ci kaaraangeem minal balaa ci balaa wa niqami ak mbugal ya tudd naa sellu maanaam buur bu tedd boobu nga xam ne ku am kaaraange ku ne moo maanaam moo la ko may maa ngi làqatu ci biir kaaraangeem ngir mu aar ma ci mboolem luy xeetu balaa ak mboolem luy xeetu mbugal ak tiis aawdu maa ngi muslu bihi ci kàttanam min hawaaya ci sama bànneex wallaayna ak wallaayni ak kuñu rabbuka wa min jamiil muziyaati ak mboolem way loraya kulla xiinin ci bépp waxtu ne maa ngi sàkku sama boroom mu musal ma ci lori sama banneex musal ma ci sama musal ma ci itam ci iblis mi nga xam ne suñu boroom da ko rëbbu dàq ko ci yërmandeem maa ngi koy ñaan it mu musal ma ci lori lépp lu am lor ci jamono ju mën a doon ak waxtu wu mën a doon nawaytu yéene naa an adduwahu ma woo ko mustashfian mbir mu muy aji sàkku ak tinu bi jaahi xibbihi ci darajay soppeem ba shafii shufaa ay kay aji tinu way tinu ña ahmada ta moo di ahmad sayidil wara mi sangu mbindeefi musalliyan mbir mu muy aji julli alayhi ci moom zaata wasulin tey borom jotliku li rabbi ya jëm sama borom asalu maa ngi ñaan rabbi ya sama borom bi jaahi ci darajaam an najaata mucc ga min arrazaaya ci musiba yi wa tanaazuil buxaati ak xëccoonteeg way réer ñi wala way bew ñi yéene na maa woo sama borom de di sàkku mu tin ma ci daraja yonant bi mi nga xam ne ab soppeem la tam mboolem ñay ràmm ñëpp moo leen di ràmm te mooy ahmad mi nga xam ne mooy sangu mbindeef yëpp maa ngi julli ci moom tey sëlmal ci moom di jotlikoo li ko ci darajaam ngir àgg ci sama borom maa ngi ñaan sama borom nag ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu ma ak mucc ci mboolem musiba yi may ma ak mucc tam ci xëccoonteeg gaa yi nga xam ne dañoo réer ak ñi nga xam ne dañoo bew laka ñeel na la alwara mbindeef fii yaa rabbi yow boroom bi xab yàlla nga may lii ñeel ma ak mucc min hum ci ñoom wa min ak ci bépp balaa wa niqmatin ak mbugal sama borom yow de yaa ma mbindeef maa ngi lay ñaan nga may ma ak mucc ci ñoom mucc ci bépp balaa mucc ci bépp mbugal jaxaltu def naa la ka la yaa xafiisu yow aji wattoo ji nafsi sama def na def naa nafsi sama bakkan yaa xafiisu yow aji wattoo ji la ka ñeel la wadiatan mbir mu muy dénkaan la ka ñeel la fa anta yow un yaay sama wéttal dëban ba faw sama borom yow mi nga xam ne yaay aji wattoo ji te loo wattu mu ñoŋ maa ngi jël sama bopp di la ko dénk te di la xamal ne yow rek lay wettali yow rek yaay sama wéttal ba faw xab yàlla nga may lee ñeel ma maa lépp loo xam ne uxibbu danaa ko bëgg fi daaray ni ci ñaari kër yi wa asim nii te yàlla nga ma musal fiihimaa ci ñoom ñaar minal aaray ni ci ñaari gàcce yi sama borom maa ngi lay ñaan nga may ma lépp lu bëgg ci àdduna ak maa ngi lay ñaan nga musal ma ci gàcceeg àdduna ak gàcceeg àlaxira wajjahtu jëmale naa wacc sama jëmm ilayka jëm ci yow rabbi borom maa wasilati ànd sama wasila nag wa loolu kat xas bii doy na ma sama borom maa ngi jël sama jëmm jëmale ko ci yow jëbbal la ko ànd ak sama wasila nag ki xam ne mooy sama sang te nee loolu doy na ma sëkk ma jëbbaloo ci yow ànd ak sama sang rek loolu doy na ma naj yàlla na nga musal janaa bi sama wàll min jamii ma ci mbooleem loo xam ne yesuu dana naqaral wax fi yàlla nga fegal an ni walis ma lépp loo xam ne yu waswisu dana jax am xel maa ngi lay nga musal sama wàll ci lépp loo xam ne lu ñaaw la wala luy naqaral la danga nga fegal ma lépp loo xam ne dégg nga day jax-jaxe xelum doomu aadama di ci dugal lu baaxut istrif yàlla nga wëlbati ànd walis ma noon ya turam seen bi nabi ci daraja yonant bi wa ahli badrin ak daraja yi ahlu badr alkiraami ñe di way tedd an nuju bi ñe di ay tànnees sama borom maa ngi la ñaan nga wëlbati mboolem noon yépp ñu jëm feneen fudul ci man maa ngi la nga defal ma loolu ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal ma ko ci daraje ahlu badar tedd yooyu nga xam ne ñoom ñëpp ay tànneef lañ mun na yàlla nga xéewale alee ci man bi du xooli ci tab bi saakinan mbir mu may aji dëkk fii xesnika ci sa kaaraange li alxasini aji aaru aminan tey aji mucc ci ñoom sama borom yaa maa ngi lay ñaan yàlla nga ma xéewale ma dugg ci sa biir ci sa biir kaaraange ji nga xam ne ku ci xas dugg mucc nga maa ngi la ñaan nga dugal ma ci te dëkkal ma ca boo ma mën a mucc ci samay noonu anta yow allazi yaay ki nga xam ne taasimu danga musal man képp koo xam ne i'tasama jafandu na bi ka ci yow min kulli maa ci lépp loo xam ne ya ummuhu dana ko jublu minan niqami ci ay mbugal yow yaay ki nga xam ne képp ku jafandu ci yow bu dër yow yaay ki koy musal ci lépp loo xam ne rek lu ko jublu la ci lu koy naqaral ak lu koy mettital ak bépp xeetu mbugal la ka na la umuri samay mbir abadan faw wa du maa ngi féetale la ka jëmee ci yow umóor yi samay mbir abadan faaw ak man te képp koo xam ne iltajaa wéeru na la ka jëm ci yaw laa yor fadu defu ko daaneel maanaam deefu ko fëgg mooy deefu ko daaneel maa ngi jël sama mbir yépp wéer la ko di la bàyyee ak sama bopp te yow yaay ki nga xam ne ku wéeru ci yaw du daanu kenn du ko mën a daaneel waqayta nii fegal nga ma yaa barru yow aji baax ji kufran kéefar faqi nii yàlla nag ma fegal dara ahlihi lori ñooñ kéefar wa kulla fitani ak bépp fi ak bépp fitna sama borom yow de fegal nga ma keefar ak ak yéefar fegal nga ma ko maa ngi la ñaan yàlla nga ma fegal lori euh, yéefar yi fegal ma lori jëpp fitna ku fa yàlla nga fekk ak fal mushrikina tenqi waaye bokkaale yàlla ñi ànniye walis ma bi ahli badrin ci daraja yi ahlu badr wajaalanhum te yàlla na nga leen def xis nii ñuy sama kaaraange sama borom maa ngi lay ñaan tenqi ñi nga xam ne dañ lay bokkaale yëkkati ko woon jëm si ci man ngir fas yéene maa lor maa ngi lay ñaan nga fegal ma leen ci daraje ahlu badar ba nga def ahlu badar nag ñu nekk sama kaaraange nekk ñi nga xam ne ñoo yor sama sécurité yaa barru yow aji baax ji kun yàlla na nga nekk léeñeel ma wala tox jil nii te yàlla boo ma gàcceel duniyaa ci àdduna wa oxra ak alaxira wa te yàlla nga jéggal an nii an ci man sama borom yow mi nga xam ne aji baax ji maa ngi lay ñaan yàlla boo ma teg gàcce ci àdduna ak ci alaxira maa ngi lay ñaan nga jéggal ma uktub yàlla na nga bind asalaatu dolli ak dolli wóolu lil Mustapha ñeel ku ñu tànn bi alihi ànd ak ñooñam wa sax bi ak i saxaaba ala dawaamin ci ak sax maa nga bind eh, ak julli ak sëlmal teraanga ak jàmm ñeel Mustapha sallallahu alayhi wa sallam ak mbokkam yi ko gëmoon ak saxaaba yi ci loo xam ne du dakk mukk luy sax lay doon ba ba faw rek. fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suun wattabacu ridwan allahi wallahu zu fadlin azim alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wa axiru daawahum an alhamdulillahi rabbil alamin mu ne unzur xoolal ilaa taxassunihi jëm ci ak sengewoom bi haadihi alkalimati ci bile baat allati bi nga xam ne madaxaha taggoon na ci allahu yàlla taggewoon na ci allahu yàlla wa madaxa ta mu tagg ci xawman aw nit taxassanoo ñun sañewoon nañ bi xaa ci moom mu ne xoolal ni nga xamee ne sëriñ bi jël na maanaam baat yi xas damay xasbunallah wa ni'mal wakiilu mu daal ci sañewoo dal ci aaroo dégg nga daal ci def muslaay gu yéeme te baat boo xam ne na sunu borom taggoon na ci ay gaay yoo xam ne ay jàmbaari fàkk tëdd lañ ay jàmbaari fàkk tëdd lañ ay saxaaba yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne allazina qaala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fa zaadahumu imaanan wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil gaa yooyu nga xam ne ay saxaaba yonent bi lañ demoon ci xare xareb Tabuk wala xareb eh, Xunayn wala xareb Uhud bi nu wàññi koo fekk seeni noon dañ leen a gañe ci yoon woowule bari ci ñu faatu lool bari ci ñu am ay blessure lool am jenn waay ju ñëw ne leen yéen day seeni noon dajale nañ mboolem lu ñu am fas yéene nañ leen a dàpp ngir jekkali leen bëgguñu leen bàyyi ngeen delluwaat seeni kër nee keroog la seen ngëm a dëgër keroog lañ gën a wakkiirlu ci seen borom gën koo wóolu ñu daal ne xasbunallahu wa ni'mal wakiilu ñun de yàlla doy nañu te doyloo nañ ko sëriñ bi nag baat yooyu la jël daal ci tënk xasida gi daal ci sengaw moom wan dama ta tàppe nag ila zalika jëm ci loolu xawluhu waxam ja wala ma tawajjaha ba nga xamee ne jublu ba xëy na altaqaynaa ci waxtu wa ñu tasee fii jeewal ci jeewal yuridu mbir moom dana nam mu an yu kallimani mu wax ak man xawaltu walbatinaa an walis ko wacci sama xar kanam wa tawajjahtu sama jublu ilallahi jëm ci yàlla mutadarrian mbir moom aji toroxlu mutaxassinan tey aji sengawu fa qara'tu ma daal di jàng bismillahi rahmaani rahim xamsiina juróom fukk marratan ci ay yoon falaanat daal di nooy shiddatuhu taram ga wan kasarat daal di damm shawkatuhu ñawkaam la wan tafaat tafay jamratuhu xalam wa nee na loolu lépp nag boo ci boolee li nga xam ne moom la weesu woon ci ginnaaw te sëñ bi doon ko nettali mu ne bi nga xamee ne agsi nañ jeewal dégg nga nasaraan boobu te mooy colonel bi nga xam ne moo doon womat armée bi moo jiite woon armée bi tamooy lekk lekk bi nga xamee ne génn na ngir jëm si ci man ngir fas yéene wax ak man man daal di wëlbët sama xar kanam jëme ko ci sama borom boole ko toroxlu jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim ngir sengewu dégg nga sunu borom daal di tartaram dal di damm ñaw kaam dal di fay aw ayam mu daal di génn dem ci ay soxlaam ma fanaan fa ma jaraaf ju ñuul ja loolu it ba tey benn la ci sabab yi jàpp gi mu jàpp ci sabab yi mu ne wa balaxa ni jot na ma wa saxta wér na ne an na axaahu naka mbokkam ma a cheikha ibrahima te mooy cheikh ibrahima faati min yow mi xaa min yow mi xaaba ci bis ba nga xamee ne fàddu na a cheikhu bi ilaa yow mi ci bisu dellu séem ga la metruk yi la sabaxan du ci ngoon wala masaan du caagene laa sabaaxan du ci suba wala masaan du caagene ci ngoon musta alfan junni min asalaati ci julli ala nabi ci yonante bi sallallahu alayhi ci tëggiinu allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ali sayidina muhammadin salaatan tunajjina biha min jamiil min jamiil al biha jamiil al xaajaati wa biha min jamiil sayyiaati wa tarfauna biha indaka ala darajaati wa tuballiguna biha aqsa algaayaati min jamihi alxayraati fi lxayaati wa baada almamaati baada xatmil musxafe ci ginnaaw wàcc ab kaamil nee na wax nañ ma wax nañ ma tayit lu wér la ne Cheikh Ibrahima Faati te mooy maam Cerno mi nga xam ne mook sëriñ bi ñoo bokk waajur wu góor bis bi nga xamee ne sëriñ bi fàddu na génn dem ci tukkeem boobu ba nim dellusee amul benn bis boo xam ne dégg nga du julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam junni yoon moo gaa yi nga xam ne ñoom la àndal suba gu jot dana julli ci yonante bi sallallahu yoon ngoon gu jot dana julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam yoon lépp rek ngir ñaanal sëriñ bi sunu borom musul ko ci ay noonam tey nee na tey nee na julli mooy salaatantu na jiinaa sala salaatu gin mii ne salaatantu na jiinaa moom la ko daan defee te nee na itam eh, dañ daan wàccee kaamil ba noppi dégg nga dañ daan wàccee saa saa bu ñuy jàng salaatu bi dañuy wàccee kaamil ba noppi. soog cee teg salaatu bi junni yoon saa bu nu xëyee ak bu nu gonte mu ne am amal musxafu ndaal kaamil bi fa kaana nekkoon na qaaiman di aji sax bi xuduuri cheikh ci teewaayu sëriñ bi sabaxan ci suba wa masaan ak ci ngoon wa amma salaatu ndaal julli gi fa maa kaanat nekku woon daa di di aji sax fa yumkinu dana jàppandi an yakkoona mu nekk al idmaanu saxal ga bi amri cheikh ci ndigalul sëriñ bi aw bi amri haadal xalifati wala ci ndigalul bi la asaalix bee aji yiw annaasi bee aji laabir xersaan ngir xër rek ala salaamati cheikh ci muccug sëriñ bi waru juuxihi akuk dellu seem nee na kaamil bi moom musta dakk bi nga xamee ne sëriñ bi mi ngi fi ak bi demee ci tukki bi waaw njëkk sëriñ bi tukki kaamil bi moom naka jekk daanañ ko jàng suba ak ngoon waaye salaatu gi nag mooy li nga xam ne moom ci ginnaaw sëriñ bi ci la sosu bi sëriñ bi demee ci tukki bi daal ci la sosu mën naa am sëriñ bi moo ko digle mën naa amit mu nekk ndigalul xalifaam bii te mooy maam Cerno Ibra Faati mi nga xam ne mm, mi ngi wane ne mooy asaalix te mooy annaasix mu ne mën naa mu nekk ci ndigalam ngir xiir gum xiir ci muccuk sëriñ bi akuk delluseem ci ay mbokkam ci ay taalibeem ci am réewam waa ayana mu ràññetle woon laxaa ñeel leen laxaa ñeel ko ëhlan ñooñ laa yaxfuloona ñooñ duñu sàggan an xaa walis ko laa sabaaxan du ci ngoon walaa masaa an du caagane ci laa sabaaxan du ci suba walaa masaa an du caagane ci ngoon yar asuhum dana leen jiite ashab bu waxambaane wa attaq yu kay aj ragal yàlla al yu kay koju kokki sàmba jóob te mooy sàmba jóob al maaruf kun xamee bi sàmba astu ci sàmba astu faqad saluxa yiw na amruhu mbiram wa taalata gudd na umruhu ak dundam waqad tuwfiya faatees na ko ama waafiri sitri ci atum waafiri sitri te mooy 1329 ci gàddaay gi bu dee ci atu tubaab mooy war a tolloog 1951 rahmatullahi nee na maam Cerno Ibra Faati dafa am ay gaa yoo xam ne ñoom la tànnoon ngir ñu taxawee loolu kaamil bi ak salaatu boobu ci suba gu nekk ak ci ngoon gu nekk ka leen jiitu woon nag mooy ku ragal yàlla ka di sëñ Sàmba Jóob dañ gën koo xamee ci sëñ Sàmba Astu nee na ku mbiram yéwén la te ku aw fanam gudd la mi ngi faatu ci atum 1329 ci gàddaay gi tolloog 1951 ci ati tubaab wa minhu bokk na ci jàpp gim jàpp ci sunna yi jafe gim jafe sunna si yonent bi saa sallam nasmuhu aw wayam li ahli badrin ñeel ahlu badr wa taxassunuhu akuk sangewoom bihim ci ñoom ayaama moksihi ci fan ci fani ak saxam fi ci ndar wa atamahu te mu mottali ko wa bayadahu te mu weexal ko bokk na ci jàpp yim jàpp ci sabab yi mooy way gum way ahlu badrin asmaawu ahli badrin way gim ko woy ak sengewu gim sengewu gim sengewu ci ñoom dégg nga jot li ko ci seen dara daraja ngir ñaan sun borom musal ko dégg nga te na loolu mi ngi ko àggale ci jamono yim saxee ndar jamono yim nekk ndar dégg ci la ko ci la ko mottali defar ko yéwénal ko wa zakara tudd na safarahu tukkeem bi maahum ànd ak ñoom ilaa xaybatihi jëm ci jëm ci e, maanaam tukkeem ba wa annahum ak naka ñoom yuxu zoona danañu gàcceel man képp koo xam ne araadahu namm na ko bi suu in ci lu ñaaw wa atlaata mu yëral alayhi ci ci moom kabiral jazirati magum dun bi alxaaji Muhammad Njaay Maabéy te mooy alxaaji Muhammad Njaay Mabé wa awsaahu tamu dénk ko bi xifzil bayti ci wattu bayit yu al awali bay aj njëkk xataa yaltaqiyaa ba ñu tasewaat baandu ci ginnaaw ba fa faala tamu def ko na euh, sëriñ bi tudd na ci nee na tukkeem bi mi ngi ànd ak taxalu badar wax na itam ne danañu gàcceel danañu teg gàcce képp koo xam ne daa nam ma jëm si ci moom teg ko dara loo xam ne lu ñaaw la wala mu teg ko aw tiis wala mu wala mu du ko naqaral moo daal di am aw bayit woo xam ne jox na ko alxaaji Mouhamed Ndiaye Mabey mi nga xam ne moom moo nekkoon magum dëkk bi dégg nga ci ndar mu jox ko bayit yi dénk ko ne ko mokkal ko ba ñu tasewaat ci jàmm alxaaji Mouhamed Ndiaye Mabey daal di koy def wal taqayaa tañu tasewaat baada sabaati awaamin ci ginnaaw juróom-ñaari at wa ashhurin ak ay weer fa xakaa daal di nettali zalika saalixu joojale aji baax albayta bayit wa bakaate mu jooy kasiran lu bari rahmatullahi yërmande yàlla alayhi yàlla nekk ci moom waxeeru zalika ak lu bokk ak loolu mim maa ci nga xam ne lam yazhar feeñut la naa ñeel na min taxassunaat yi ci ay sengewoom nee na eh, alxaaji Muhammad Njaay ma bay daa mokkal bayit wi sëriñ bi dem ci tukkeem bi juróom-ñetti weer juróom at yu manqué ay weer dégg nga dellusiwaat dajawaat ak alxaaji Muhammad Njaay maa bay alxaaji Muhammad Njaay maa bay daal di tariwaat bayit wi ci kanamam boole kooku ay jooy yu bari yàlla na ko suñu dool doole yërëm nee na itam dañuy dañuy xam dañuy xam bu wér rek ne am na ay xeeti sengewu ak ay muslaay yoo xam ne sëriñ bi def na ko njëkk muy dem ci tukkeem bi te feeñut yi nga yi nga xam ne moom lañ teg bët te man koo wax mooy yi nga xam ne rek feeñ na ñu teg suñu bët gis ko waaye am na ci yoo xam ne dañuy leer ne rek diggam ak boromam rek la ak yonente bi sallallahu alayhi ñun xamuñ ci dara wa sami'tuhu dégg naa ko yaqulu yawman bis yaqulu muy wax ne innahu naka naka moom lam yatruk musta bàyyi yowman benn bis fil baxri ci géej gi qiraata xisbil baxri jàng xisbul baxri lil imaam Shaazali ñeel al imaamu Shaazali wa huwa te moom xisbun ab dog la rafiun bi aji yëkkatiku kafaaka doy na la rek iatinaa u cheikhi sonnek sëriñ bi ak yittewook sëriñ bi bi ci moom Cheikh Mahamadul Amin nee na dégg naa ko bis moom sëriñ bi muy wax ne diirub lim nekk ci géej gi amul benn bis boo xam ne jàngul xisbul baxri bi nga xam ne abul xasan abul xasan ashazali moo ko def lépp rek ngir jàpp ci sabab yi ak ngir maanaam muslu te nee na xisbu boobu kat xisbu bu yëkkatiku la bu am wàccuwaay la doy na doy na la sëkk rek nga xam xiima bi mu am mooy sëriñ bi teewoo gi mu koy teewoo ak sonne gi mu koy sonne ba di ko jàng bis bu set kon xam naa mbokk yi incha allahu taala darsu bi dañ koy yemale fii rek ba beneen yoon ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.